di internet dalee nag jàmm seen chaîne youtube Mouride Sadikh TV SENactu du jour li ci gën a fës dañ koy dooree ci waa coalition Diomaye 2024 ñoom ñi lekkoon ambassadeur bu États-Unis daal di na leen recevoir ni ki ñu eh, amaloon ab waxtaan bu yaatu jëm nag ci élection eh, présidentielle yi ci noonu tamit moom Raynor daal dina exprimer eh, soutien bi nga xamante ni États-Unis daal dina koy amal jëm nag ci mbiruma démocratie sénégalaise moo a ci nu mu gën a gaawee ba tey li jëm ci mbirum xibaar préfet bu Dakar jamono jëlee kon dañ lay autoriser marche pacifique mi nga xamante ni collectif Macky dans les cœurs ñoo ko daal di organiser boobule marche nag kii di Ami Top Amadou ak kii di Matar Gueye ñoom ñi lekkoon ñoo ko daal di déclaré ngir nag ñu soutenir kii di président Macky Sall boobule marche nag kon ñu war ko amal ni ki tey jile bu 16h jotee jàpp 18h dinañ ko doore nag ci fi nga xam ne rek mooy intersection jumaat ji liberté 6 jëm nag au niveau du censeur Cyprès mi nga xam ne rek kon moo situé sur VDN gannaaw nag bi nga xamante ni préfet bu Dakar mujjee na autorisé boobule marche pacifique mi nga xamante ni rek kon ñoom ñi la ñoo ko daal di déclaré ngir nag soutenir président de la République.